Moutarde Chef Aïda, goûte et apprécie. Les poulets fumés attissent à la découverte d'un concentré de saveurs. Livre Cuisine, la cuisine autrement. Donnez une nouvelle vie à votre intérieur.

tay dama laa indilaatal yi nga ko. artiste nga ma artiste poulet artiste yi ngi la indil nar la ko mariner ba ko ci four bi. def suñu accompagnement. les comme accompagnement yi nak dinañ am euh, pomme rissolée. dinañ am aussi jardinière de légumes. voilà ci biir pour pomme rissolée yi tamit ngi des pommes de terre am mhm. voilà donc yu yomb laa la tegalal fii. tey yu yomb daal nga may indi. Mm-hmm. voilà donc man ma féetale la fan ci poulet artiste bi wala ci légume. est-ce que doo ma bàyyi ci légume bi rek comme d'habitude. Ah. waa tey jom yoo sama njoolaay. man de tey damaa jom. déggal yi tey moom ñoo tolloo nii. daa sol talon. pourtant munoon ngaa bàyyi noonu. mu sedd man nag musuma sol talon bi ma dalee. munoon ngaa bàyyi noonu mu sedd rek. <laughs> musuma sol talon damay ragal ñu ne kenn moo sol talon bàyyi nday jaay <laughs> ma lay tiijal. voilà léegi man li may def mooy euh, jël sama poulet. raxas nañ ko ba pare mhm. lépp deñ na. yaa xool nu mu la neexee nga defee ko noonu nga dóoral ma accompagnement yu baax. nee naa la poulet artiste bi moom prêt à la bu la neexee dangay ngay lankali une dernière ma rey man. après nag daal di koy ñëw dagg def sa marinade. voilà seetlu woo dara. ni ma yéegee naa dara de dama yéegee woon noonu laa wàccaatee <laughs> lii. mun na dañ maa fay ne ma solal coquette yi. nii la defoon jékki-jékki ne nii. te munu maa tooloo xam nga gileem moom jarul solal coquette ndax ñool na ba doppi. ñool naa nee di dem bu tooloo mooy. sonn naa trop su ma ko daggee ba pare rek après damay daal di ñëw.

daal di sauté samay légumes waaw man du ma la yàggal ci dara loo ma jox ma def ko rakkin càkk gis naa loolu léegi man def naa sel maa ngi nii di def poivre mhm. léegi marinade bi moom may dese mhm. ma def ko ci daal di dem jël sama plaque marinade moom lépp am na saf na saf am na ci am na kaani def naa ci tuuti ketchup aussi mhm. euh, loolu da ciy am dara da ciy am dara rek ma dugal ko fu ne ginaar moom bëggu bëgguma ku ko yërëm defal marinade dugal ko fu ne fu ne sax foo laal muy tem temi mhm. ndax des fois xam nga day sicc waaw day sicc donc du coup te waa atis ñoom dañ koy raxas ba mu set laaj bi yooyu da ciy baax atis moom dañ koy raxas ba mu set mhm. moo tax sa marinade du compliqué du compliqué da koy dugg nice li ci des huile bi noonu su ma ko tegee ci plaque bi mhm. ma daal ko ciy sotti déggal loolu xam nga ban ginaar de waaye bii dootu ko defati léegi avant ma koy griller au four dama koy njëkk a daal di teg ci feu bi ba pare. waaw ah, ok. Mhm. man moom pare naa sama pomme de terre fi mu toll nii. dagg nga sa pomme de terre dagg nga say légumes. peste bi laay haché nii rek. bu ma paree mën nga mën koo teg. mën ko ñëw daal di kii. daal di ñëw def jardinière de légumes. waaw ñu paree ndoo comme d'habitude. ñu paree ndoo comme d'habitude. voilà man ginaar gi moom du ko yàggal fii. après dama koy yóbbu ci fóot bi fóot bi moo koy ñoral. moo koy ñoral waaw dama ko fi xuuxal rek. voilà xuuxal ko tuuti rek. pour couleur bi gën a gaaw a génn. naratoo jàmm de xam naa ne moom moom tey nar naa lekk ba génn télé. ana bloc note bi maa man tey gisuma bloc note bi. bloc note bi wala bii jàll bi du sax ma daanu génn dama ko daan capté ma duggee bind. fi mu toll nii yëpp jàpp naa ko bu ma paree damay recopier damay recopier rek li si sama bopp. ah mbaa doo fàtte. du ma fàtte dara. du ma fàtte dara léegi ala na mel ni wàccoon naa ak yow de génn kii bi man da mel ni sax mën na yóbbu au four lima ma am nii doy na ma waaw nga xam ne ni dina gaaw a ni nii day gaaw a ñor dugg hmm. di génnaat daal di ko yóbbu kaay léegi man mën naa teg sama kii pour sauce man moom teg na si damay enfourner mhm. da di ko fi fatte rek nga xam ne dina ñor dina doole comme que xam xaw nga koo xuuxal ni tuuti bu duggee rek du fa yàgg. man teg naa sama pool ni pour sauter samay légumes. ma defaral la pom de pomme du soleil. waaw ah, daal di def pour pomme du soleil. Mhm. may defal sama. sa jardinière de légumes. waaw léegi man xam nga. compaguma ko noonu. Hmm. léegi def naa huile léegi nan laay def rek may jàngalaale en même temps. ah compaguma ko. non compa comprendre gu ma. ma la ko wax ndax da yor sa bloc note. c'est pas la ma ma. ah defoon nañ ko ah, ñaata laa fi def sauté légume légume ñaata ñaata chaque jour ma sauté laar dëgg dëgg compaguma. Ah, non man maa ngi ñu laar. ah man daal li bindoon naa ko de pourtant. yow daal yaa noonu may ma may ma deux minutes rek. mi ngi woon si kii may ma rek ba xool ko. waaw baax na. xam naa li may def tey danga ma xooj noonu. tey danga def sax nag ma naa ko danga ma xooj garaawul. dootoo ko defati yow. ma tàng na sax. kon daal tey danga def nii say loxo si sama sama togg bi tey. lu ba deful noonu may def. baax dafa yomb ci garaawul. Mm. Hm. may maar yow. Hm. dangay jaay ma fit naa ma defal may maar lépp laa ci def samay couleur rek lu mu lay def ni couleur bu ne génn na ci fu mu toll nii benn couleur merew instant yi. benn couleur merew balaa baa ngi vert bi di def lu orange bi orange bi Amna na beneen vert kii. vert singom vert singom mooy vert singom ak lan waaw couleur daa mel ni samay couleur tëll na de mënoo woon ma ko bàyyi foofu rek lii dama si doon coofe coofel dama doon ñëw naa ko ñëw foofu <laughs> nga maa bàyyi rek fi mu di xamoon naa dig ma wan. yow xam nga ma tey wanu ma la dama <laughs> la xëccal say la nii. léegi xoola xam nga fi mu raata muuna na ñii ñëpp daje sama poivre laay def way tey laa la nar a ba dootoo ko. waaye kii. defuma xorom. def nga xorom waaw. léegi loo si bëggati maasale bu ne daje. Mhm. mu ñor na ba pare rek ñu toll nii léegi loo waxati. ah en tout cas de poobar bi moom. bëri na xaw ma nag. man mi ko nar a lekk tey maa nar a am problème. en tout cas tey dama bëgg ngay sentir poobar bi di jooy sa bët yi tey moom dama bëgg sa jooy. waaye lii kon dama bëgg métital tey dama bëgg sa jooy. yaa kan ngi njëkk a métital. ndax yaa ma njëkk a métital ya, la moo yow ñaata yoon laa togg lii wan la ko. non dama faté day am mais bii moom faté wu ma ko bindoon naa que wax. man kay waxuma dara mu gën a gos. a mhm. fait ma pare ci fait des sa pomme de terre. waaw léegi nag. ci dem pes ci ah ma ne un la ko. a <laughs> ba fay bi rek. pare a oh. koy koy mhm. ëpp sauce rek ëpp na.

loolu dina man neex rek dama ko ci bàyyi nii rek en attendant yow pare nga sax boo paree lii ma pare. dañuy xaar ginaar bi ñor may ma deux minutes li nga wax ni am na importance jar na noté. pomme de terre bi loo ci waxati. rissolé. waa après nga da koy xaw a xuuxal tuuti baxal ko. ci ndox bi waaw. waaw waaw loolu tamit jot am na. merci beaucoup merci beaucoup c'est très important lii. Pousa may ma deux minutes rek. baal ma de ci dérangement bi jàng rek jàng metti de xam nga faaw ngay bind. ndax buru dul loolu rek mi ngi noonu man sama bos pare na. waaw man tamit pomme de terre bi léegi mu pare. mi ngi noonu tegg ko nii. def persil bi nii muy jal cali cali ci biir ma teg ne boo pare yow. léegi nag mën naa ñëw defar dessert bi. comme d'habitude rek comme d'habitude xaar. plat ginaar bi ñor suñu paree ñu tegandoo lépp rek à table. waaw tey fan nga nar a génn ak ci dessert. fii demal nga toog. dama koy defal surprise dama la koy defal surprise ndax li ngay bind ci plat yi daf ma ëpp doole instant may ma ma yéegaat samay coquette doo koy dellu ca bërëb njoolaat na waaw defal ni kaye bi am na yu ma bindul woon le temps ngay defal kii bi dessert bi ma demee recopier ndax mi ngi sama bopp bi voilà donc à tout de suite waaw kan bye dessertu tay bi nak euh, cheese chocolat la len indil defar naa sama pâte feuilletée inversée ba paré amna fi ñaari nen yo xamné dama koy clarifier jaune bi lay soxla pour dorure amna fi ni euh, du chocolat noir fondu amna sucre glace pour la déco am fi aussi euh, du du du chocolat à tartiner légui limay may def moy damay étaler pâte bi ba paré donc man ci kaw planche bi la koy étaler pour bañ mu je ne dina pas défar dina gëna yomb suma koy ki suma koy après ma formé ay carré ak euh, bi formé carré ba euh, chocolat bi chocolat au lait la ma ko ci biir ki bi ci bi ma koy de telle sorte à obtenir Ben qui Ben On triangle faire la même chose pour pat le ëppal sa loxo. sa jongoma lan la. gis na la couleur la la. vert jaune. def nga lu doy war joxuma la porte mayonnaise. man la tay mom chef ay dara nga ma jox mayonnaise. Hmm. waaye fàttewu ma ne gis na sa jaune ak rouge ba nga tembal ci bir yow li nga ma jox. muy bis ni man nga seetlu mo won nii kaa bi rouge bi ci sou yaa non non wala man damay jël mayonnaise bi nank yow nga jël mu tardé. nga jël loolu da nga waroon jël li nga dural ma jural ma ku ne jël sa sa hôtesse. dina hôtesse oh, man mu tardé. non man mu tardé laay def. ah moom ngay def mu tardé laay def. <laughs> yow géral mayonnaise bi rek. jox nga ma tey tey moom maag sama doomu ndey kon ñoo far. yaa sa doomu ndey yéen a far. saf safar moo na mu bëgg lu saf. soo paree. Mhm. nga wax ma loo gis ci sama ginaar bu ñu lakk. non sa ginaar rek. ni nga ko tegee moo njëkk a rafet. bu ko tegee mo njëkk a jongoma waaye say légume neex na xam nga lan ma ci neex hmm. légume mi tassu fi mu ne nii guub daf ci dess ba tay mais dama ko toggé ngëm-ngëm lo jang dama ko togg loy tari lu ne faaw nga def ko ngëm-ngëm té li dama ko jang jang bi dama ci jox dama ko jox akam dé mhm. waaw kañ lo la bëgg mu leer dama ko togg muy tass di saboter sama ki xalaatuma ko moo tax neew ma wan ma benn yoon du ma ko def mm. ba ba na duma ko def xool di sey xoolal macha allah yàlla na sa jàmm yàgg. man li ma neex ci yow mooy. nit ñi man li problème bi man benn problème laa am sax laa indi ko wax. ban problème ndax euh, nit ñi dañoo yaakaar ni. Mhm. weeru koor rek nga war a def lu baax. ah am na ñenn ñi dañ koo yaakaar ndax ñenn ñi moom seen def lu baax duñ ci jug. 360 exemple ci yow yaa ngi nii. Mhm. ba nga dalee def ak man lu baax ci lekk sama biir bi ba tey wàccoo ma mais nit ñi damaa gis ni comme koor gi nii dañ koy jëlee dënd daal def lu baax na xam nga wax na yàlla li mu wax rek. koor boo ci defee benn mu fulalu ko ba mu mën waa mais loolu dafa war a continuer nit dafa war di def lu baax chaque jour ci boo koy am ndax ñi soxla ndimbal ñu ngi koy soxla ba tey lu dëgg comme genre lekk yi mhm. am daara yi comme nii nii man sax bëggoon naa ñu waxtaan si bala maa ñibbi mhm. def affaire xam nga yóbbul ko daara pa Ousmane day daal social nga nga bëgg a woote waaw loolu laa bëgg du dëgg ñu ñamal leen ci du dëgg wax nga dëgg de te xam nga koor gi sax nag nag da nga doon génn heure ndogu mhm. bu la fekkee ci mbedd fu la fekk nga ndogu

waaw kon kon nag day taxawalal dara nag. ah yow bëgg nga ma taxawal daal. bëgg naa loolu wax naa si li ma lay wax si lekk yi benn jour ñu xaw a jaayante rek. Hmm, def lekk yu baax yóbbul ko daara ji. xale ci daara rek. waaw ah, da ciy baax. ñu koy ñu koy ñu koy faral def muy bañ a yem ci koor gi. incha allah koy tas daal. mu ngi noonu. bloc note bi bind ay dessert. wax nga dëgg de. waaw kon yow def nga remarque boobu. Hmm, baax na mais bii. Bini ni mu nee topp nii boo sama kii di xaaral kii chocolat bi nii di la saf ay fataaya ak yu kenn xamul bëgg chocolat man mhm. est ce que man du ma du ma kii ci tay ci kii bi doo ko ne xam naa jikkoy lii ba pare est ce que du ma xool lii doo xool jikkoy dese wala ni ma koy tappe déggal lii ëpp na lii lan man boo man boo tàkkamtikul rek dama naan lii sama guu baaxul nga gis ma dem waaye lii la yow lii lii lu mu tudd. cheese chocolat. lan. cheese chocolat. cheese. xam nga da dégg cheese cake. Mhm. style boobu nag laa laa xaw a sàcc mais par contre avant may defar ay fromage bi ci biir. yow cheese mi vulgaire na de. dafa vulgaire lii dafa neex. yaa ko na rees ak jàmm yow daal na lay neex rek. xaaral ah, ma toog nii di ko cek bu ma paree lii mun naa ci ndéem tàkkamtiku na rek. kon <laughs> ah. Moutarde Chef Aïda, goûte et apprécie. Les poulets fumés attissent à la découverte d'un concentré de saveurs. Livre Cuisine, la cuisine autrement. Donnez une nouvelle vie à votre intérieur.